Sénégal. Euh, donc le signal de chaîne de télévision coupé, le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse alerte, vous l'entendrez dans cette édition. Y a-t-il encore espoir de retrouver en vie les quatre personnes portées disparues depuis maintenant deux ans dans la forêt de Niadiou dans le sud du pays? Espoir et angoisse dans les familles divisées sur la question du deuil. Un reportage de Ignace Ndeye à suivre dès le début de cette édition. 14 blessés dont toujours la tension dans le village. À Dougar, la tension persiste également. Trois blessés, dont l'un par balle, euh, de nouveaux affrontements la DESCOS qui procède à des démolitions. Et la junte a nommé hier dimanche un gouvernement de transition. Junte qui promet mois. Et le développement de tous ces Issegnan. Bonjour à tous. Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition. Bientôt deux ans que quatre personnes sont portées disparues dans la forêt de Niadiou, c'est dans le sud du pays. Euh, les familles, à l'image de celle de Fodé Konaté, l'un des portés disparus, partagé aujourd'hui entre espoir d'un hypothétique retour et angoisse euh, des familles qui restent divisées sur la question du deuil à observer pour ces quatre personnes portées euh, disparues après donc une séance forêt de Niayou. Les faits se sont déroulés au mois d'août 2019 depuis aucune trace, aucune nouvelle sérieuse. Les précisions avec Ignace Ndeye. Faut-il faire le deuil après 18 mois de disparition? La question fait polémique au sein de la famille de Fodé Konaté, l'un des quatre portés disparus dans la forêt de Niayou depuis bientôt deux ans. Une famille partagée en ce moment entre espoir d'un retour hypothétique de Fodé Konaté et angoisse d'une disparition définitive reste divisée sur la question quant à porter le deuil. Ibrahima Sakho l'oncle de Fodé Konaté. man mii wax na jabaram ma ne ko fu mu tël nii te njël mu ne fan yii. moi j'ai dit à sa femme de porter le deuil mais là elle ne semble pas d'accord. Jusque là il y a un problème pour elle de porter le deuil de Fodé. alors que nous nous avons perdu espoir. Bientôt deux ans que Fodé Konaté et trois de ses compagnons partis à la recherche de fruits sauvages et de bois dans la forêt de Niadjou sont portés disparus dans cette même forêt. Aucune trace, aucune nouvelle depuis bientôt deux ans. La famille perd espoir de retrouver son parent. Après deux ans, on est à sa mais pas de nouvelles. Je suis allé jusqu'en Guinée-Bissau, dans un village appelé Bofa. J'ai beau chercher, ah, demander, rien. Ah, là, on a perdu espoir, plus d'espoir. Une lueur d'espoir avait pourtant surgi au sein de la famille lorsqu'une certaine rumeur circulait sur la présence de ces portés disparus de Fodé et ces trois autres personnes qui travailleraient dans des champs contrôlés par des bandes armées dans la forêt. Mais hélas. L'année dernière, quelqu'un nous avait signalé la présence d'une personne aux mains de bandes armées euh, qui travaillerait dans les champs mais après rien plus de nouvelles de Fodé. Aucune nouvelle, aucune trace de Fodé Konaté et les trois autres personnes. Les recherches arrêtées depuis. L'espoir s'amenuise de jour en jour chez la famille de Fodé Konaté, l'un des quatre portés disparus. parce que maaluutu bu ñëw le cinq xaw ma le cinq le six laa demoon. ah ñun de yàlla xam parce que ñun de suñu yaakaar tas na. xëy na mën na am mu ñëw. waaye ba léegi ñun suñu yaakaar daal alhamdulilah. Ziguinchor Ignace Dey Sud FM. Ignace Ndeye, des affrontements qui se poursuivent à Dougar, la colère des populations de jour en jour suite à l'intervention de la DESCOS qui poursuit les opérations de démolition de plusieurs habitations. Des affrontements qui ont occasionné hier trois blessés dont l'un euh, par balle, explique euh, Diop Nourdiaye, porte-parole des populations interrogée par Birama Ndiaye. Là vraiment nous vivons des situations euh, déplorables au niveau de Dougar, d'où l'affrontement de la population avec la Il y a trois blessés, l'un par balle. Les deux autres sont extrêmement blessés. L'un risque de perdre l'usage de ses deux yeux. Donc, ce qui est déplorable. Uniquement pour l'intérêt d'un Marocain qui est là pour détruire des maisons sénégalaises pour pouvoir en construire d'autres maisons. C'est vraiment déplorable. Et nous demandons, nous sommes dans quel Sénégal Le Sénégal pour tous ou bien le Sénégal pour un de suivre les précisions de Diop Ndour Ndiaye à la suite de nouveaux affrontements enregistrés hier à Dougar entre les populations et les éléments de la DESCOS qui euh, poursuivent les opérations de démolition euh, des populations qui ont le soutien du mouvement Y ou encore de Frapp euh, France Dégage. Les responsables étaient d'ailleurs hier sur les lieux pour exprimer leur solidarité devant l'injustice que subissent ces populations. Guy Marius Sagna nous explique micro de Denisia Le mouvement Frappe euh, ainsi que le mouvement euh, euh sont venus aujourd'hui euh, à Douga exprimer euh, toute leur solidarité pleine et entière à nos concitoyens sénégalais de Dougar devant l'injustice qu'elles subissent ces populations-là depuis 2009. Au moins, nous ne pouvons pas accepter qu'au Sénégal, qu'on déshabille des citoyens sénégalais pour habiller des Marocains. Nous ne pouvons pas accepter qu'au Sénégal, qu'on déshabille de leurs terres des citoyens pour donner à des étrangers. Parce que c'est de ça dont il s'agit ici, aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse raconter, le fond de la question, c'est qu'on veut arracher leurs terres à ces populations qui vivent ici depuis au moins trois siècles pour donner à des Marocains, pour donner à des étrangers. Et cela ne peut pas passer. Maintenant, nous voulons la paix, nous voulons la décrispation, nous voulons l'apaisement. Mais pour qu'il y ait pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait décrispation, il faut justice. Et la justice, c'est qu'on laisse leurs terres aux éleveurs, aux paysans, aux agriculteurs, aux habitants de Dougar. Pour qu'il y ait décrispation et apaisement, nous posons au moins trois conditions. Nous demandons trois choses au président de la République Macky Sall. Un, que ceux qui sont arrêtés et qui sont de Dougar soient libérés. Il s'agit d'un jeune, qu'il soit libéré immédiatement, sans délai. Deuxièmement, que l'opération barbare et criminelle de déguerpissement, de démolition, soit suspendue sans délai, immédiatement. Troisièmement, que l'État du Sénégal, à travers la DESCOS, à travers le ministre de l'Urbanisme, ouvre des discussions, des négociations, afin qu'on trouve un terrain d'entente parce qu'il est possible, dans la paix, dans la quiétude, dans ces derniers jours de mois de Ramadan, nous, habitants de Dougar, nous, population de Dougar, nous, musulmans de Dougar, nous avons autre chose à faire que la confrontation. <clears throat> Cependant, nous ne lésinerons devant aucun moyen pour faire face à cette vaste entreprise de spoliation foncière qui est en cours. Nous ne lésinerons devant aucun moyen. Des affrontements également enregistrés hier entre jeunes de, de, de Diohine et les forces de l'ordre. Des affrontements qui ont occasionné au moins 14 blessés, dont 6 euh, du côté des éléments des forces de l'ordre. 30 personnes ont été euh, interpellées avant d'être libérées tard dans la euh, soirée. À l'origine, toujours l'affaire Serigne Bara Sène. Les précisions avec Ngor Le calme est finalement revenu à Diohine après une chaude journée d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le bilan fait état de 14 blessés au total, dont 6 gendarmes. Deux cas graves sont notés du côté des 8 manifestants blessés et sont évacués au centre de santé de Diohine par les secouristes de la Croix-Rouge. Deux cases sont aussi incendiées par les protestataires au niveau du Dara de Serigne Bara Sène à l'origine de la colère des populations avec des dégâts matériels. La gendarmerie a procédé à l'interpellation de 39 manifestants. La marche a dégénéré lorsque les jeunes ont dévié leur itinéraire pour s'attaquer au domicile du marabout. Mais le village et la maison de Serigne Barassène sont quadrillés par la légion de gendarmerie d'intervention venue encadrer la manifestation dès les premières heures pour éviter tout débordement. Les jeunes continuent de dire non à la cohabitation avec ce marabout et exigent son départ du village. Tout est parti des affrontements qui ont eu lieu le 11 avril dernier entre ces partisans et les populations. Ces dernières sont plus que jamais déterminées pour le départ du jeune marabout, fils de Serigne Cheikh Ndigal Galsen de Ndiambourcine dans la commune de Patar. La gendarmerie veille toujours au grain avec une vingtaine de véhicules. Ngor Sarr Joyin Sud rappelons-le les jeunes interpellés ont finalement été libérés tard dans la soirée défaillance dans la distribution de l'eau dans la commune de Notto Diobass plusieurs villages sont touchés euh, par cette pénurie des pénuries récurrentes du liquide précieux depuis maintenant plusieurs années sans solution le mouvement citoyen euh, donc euh, dénommé les Sentinelles du Diobass porte le combat un grand rassemblement s'est tenu ce dimanche au euh, Le syndrome de la soif dans le Diobass affecte terriblement la zone est de la commune de Noto, le village de Hanen et environ hausse le ton. Kër Wade, Mbenguen, Cambine, dëkk su ci forage la ñu dépendre mënuñoo gisum ndox. Deux ans de calvaire, un manque d'eau notoire qui irrite le mouvement citoyen Les Sentinelles du Diobass qui porte le combat des populations. Pape Modou Tiandoum, porte-parole du jour. C'est donc l'occasion de préciser que la souffrance de la zone de Anen, raccordée aujourd'hui à Cœur Madaro, est grandement liée au manque d'initiative, aux énormes défaillances de la société Aquatec. Avant Aquatec, la gestion de l'eau n'a jamais été un problème à Anen et environ. Aujourd'hui, l'avènement de la privatisation qui découle de l'entière responsabilité de l'État du Sénégal n'est rien d'autre qu'une arnaque organisée, un manque total des populations concernant la distribution de l'eau dans le Diobass à des forages implantés sur place qui desservent d'autres localités, une injustice à réparer selon les sentinelles du Diobass. Il serait aussi bien de préciser ici que les forages locaux du Diobass sont aujourd'hui confrontés à de sérieux problèmes de logistique, mais aussi et surtout de baisse drastique de la nappe. Ainsi, ils sont tous condamnés à mourir en raison de la puissance en termes de pompage que génèrent neuf forages destinés à la zone semi-urbaine et urbaine dont une grande partie de Dakar et de Thiès, mais également le projet Noto Ndiosmon Palmarin sur le champ captant de Tasset avec six forages qui desservent une bonne partie de la petite côte. Voilà pourquoi nous, Sentinelles du Djobas, exigeons un branchement de tous les villages de la commune à partir de ces deux pôles pour une solution efficace et durable. Il est donc de la responsabilité de l'OFOR de créer les conditions pouvant permettre une entente entre Aquatec et à propos de l'approvisionnement correct en eau des populations du secteur de Anen. Entre la menace opérateurs Aquatech, les sentinelles du Diobass n'écartent aucune action pour remettre à leurs concitoyens leur dignité. Les populations du Diobass, citoyens à part entière, sont entièrement laissées à part. Il nous faut donc nous battre à rétablir cette injustice. Aujourd'hui, on ne demande plus vraiment l'amélioration de, de qualité, mais on veut que Aquatech vraiment dégage. Et puis nous sommes le 3 mai. Ce 3 mai, l'on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour la coordination des associations de presse de tenir un sitting devant le ministère de la Communication pour dénoncer les violations de la liberté et de presse, notamment lors des récents euh, événements. Écoutons à ce propos Mamadou Ibra Kane, euh, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal. Il répond à Abdoulaye Malheureusement, après les événements du mois de mars dernier, il y a eu beaucoup de violations de la liberté de presse, euh, dont, par exemple, euh, le préfet de Dakar qui a ordonné aux forces de l'ordre de gazer les journalistes et techniciens des médias. Hein, nous pensons que cela émanant d'une autorité administrative est une violation extrêmement grave de la liberté de presse. Une autorité administrative ne doit pas empêcher la presse de faire son travail. Deuxièmement, 21 dans les violations à la liberté de presse, euh, l'interdiction par l'Assemblée nationale de la couverture de la session parlementaire pour la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. C'est également un fait extrêmement grave en ce sens que la représentation nationale euh, se cache du peuple. De la même manière, nous avons constaté la violation de la liberté de presse par le CNRA, organe de régulation de l'audiovisuel, qui n'a aucune compétence pour couper le signal d'une télévision. C'était les télévisions euh, et Sun TV qui en ont été victimes. Donc euh, la tenue d'un sitting euh, par euh, toutes les associations de presse du, du, Sénégal est un signal extrêmement fort pour le gouvernement en place, pour le régime en place, pour dire attention, est-ce que vous êtes au courant de toutes ces violations de la, de la liberté de presse C'est également un signal pour tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition. C'est également un signal pour euh, une alerte pour tous les citoyens sénégalais pour qu'on puisse préserver notre presse qui garantit la liberté d'expression, une presse qui garantit la stabilité politique et sociale, une presse dont on peut s'enorgueillir en ce sens qu'elle nous a permis deux alternances politiques en et en

suñuy diiwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. waaleykum salaam soxna ñuy màggal li ñu duppee journée mondiale de la liberté et de la presse. salaamaaleykum mbokk yi jërëjëf tey jii la ñetti fan ci weer wi e, ñu fas yéene dem dem sikk mujj waa kër jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk communication di naqaru itam jalgati gi nga xam day faral di am di dàq nit ñi ñu bañ a tàbbi ci assemblée nationale rawatina ak taskatu xabaar yi kilifa naan dal leen ci kaw taskatu na ci tomb yi nga mooy yëngu ci wàllu fànn boobule daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi ñeent ñi nga xam ne dañoo réeroon boobaak léegi toll na ci ñaari at yàlla ci foore bi nekk fële ci ñaju ci boori Casamance daan ci dikk léegi ak Ignace Ndeye fan la ci seen i bokki bopp toll fukki nit wala boog lim bu takku ñu am ay gaañu gaañu fële ca euh, nga xamee ne ak itam ay foxtaloor fële ca jooyin gannaaw ba nga xamee ne mbiri kii di Serigne Bara Sène moo andi coow li foofu yi daan ci toftal Maodo jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu boobaak léegi léegi mu jege ñaari ati yàlla ñeent ñoo xam ne ñi dañoo réeroon réer sax la ñu def léegi ci àll bu nga xam dafa àdd te àddiwul ca fële di foore bu nekk fële ca ñaaju ca diwaanu ci gicoor njaboot yooyu nag daal mel ne nekk fi ñu toll dañoo nekk ci ak njàqare ak tiit itam waaye nag itam amandi yaakaar ne xëy na loole war naa mën a ne Ignace Ndeye demoon na fa ñu déglu ndax war nañoo tëñ bi kii di Fodé Konaté ginnaaw fukki weer ak juróom-ñett bi nga xamante ni réer na ba léegi kenn jisu ko laaj bi ni mel nag jamono yi indi na xëccoo ci biir njabootu Fodé Konaté Fodé Konaté bokk ci ñeenti ñi nga xamante ni ci atum 2019 ci weeru août bi lañu réeroon ci àll bi ba léegi kenn gisu leen seen njaboot nekk jamono yi ci diggante yaakaar ñu gis leen ak njàkkare ñu faatu war nañ koo dëjal am déet jamono yi daal di leen xaajale Ibrahima Sakho nijaay la ci Fodé Konaté. man mii wax na jabaram ma ne ko fu mu tël nii te njël ma waa depuis boobu dégguma ko bon mu ne presque ba léegi daal problème bi tënj bi moom te njuul moom yaakaar mu ngi si moom te ñun fu ñu nii suñu yaakaar ne ko si léegi toogu noonu bu ndaw la encore loolu rafetul léegi mu mot nag ñaari at ginnaaw Fodé ak ñett ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon dem ci àll bi wuti ay fruits sauvages ak i bant ba léegi kenn gisu leen ci weeru août atum 2019 ci àllu ñaaju amul benn xibaar amul benn trace bi nga xamante ni njabootu ñoom Fodé seen yaakaar mu ngi wéy di tas ñun koy ñaar at yi yëpp ñu ngi koy uuti fu ne dégguñu xibaaram dégguñu dara si affaire am dama jóge fi dem ba Guinée Bissau dem dëkk bu ñu tudd euh, Bofa ma dem laajte ba foofu waaye dégguñu benn xibaaram ah ñun kay fu ñu toll nii suñu yaakaar tes na ñun kay amuñu yaakaar si moom xëy na yàlla xam waaye ñun de amuñu benn yaakaar si moom jamono lu yële ñu génn amoon tuuti yaakaar ginnaaw benn xibaar bi ñu jàppoon ni jot nañoo gis foodee waaye nag loolu ba léegi kenn amatu ci lii di xibaar. daaw daaw presque dégg nañ am na ñu jàppoon ci benn àll ba fale ñu ngi liggéey foofu waaye ba léegi dégguñu benn xibaaram ci Fodé Fodé Konaté. amul benn xibaar amul benn trace su Fodé Konaté ak ñetti ñi nga xam moom la àndaloon ci àll bi ñu wër leen ba sonn kenn gisu leen ginnaaw léegi mu def ñaari at yaakaar mu ngi wéy ba léegi di gën a tas. ci seen njaboot yi. parce que Maluutu bu ñëw le cinq xaw ma le cinq le six laa demoon. ñun de suñu yaakaar tas na. xëy na mën na am mu ñëw. waaye ba léegi ñun suñu yaakaar daal alhamdulilah. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ay jàppante yi ñu ngi am ba léegi fële ca Dougar gannaaw ba nga xam ne askan wa dañoo mer lool ne daal gannaaw ba ñu yàqee seen ay kër deskos ñoom ñooy di euh, faral di yàq kër yooyu le ñoom nag la leen metti mooy li tax coow li na kur ban jóg daal yëngu-yëngu yi am mooy di alkaati yi ñëw daal ci seen kaw neen daal bokk na ci li nga xam ne metti na leen loolu sax kii di Jóob Ndaw Njaay mi nga xam ne tam jokkoon na ci ak Birama Njaay lii la ci wax dañ ci dikkat léegi ak euh, kooku di Diop Ndaw Ndiaye ci fale lu ci mën am rek moom mooy euh, ca Dugar ba léegi yëf yaa ngi gën a wéy euh, daal waa des Descos ñi nga xam ñu wer wàllu suuf seeg dëkkuwaay yeeg yu demee noonu la dafa yàq nag ay kër di ko toj ñoom loolu nag moo leen metti ba ñoom tamit ñu fipp woon daal jóg coow li na kuris coow na kur fii nu toll nii laaj yi tamit ci fexe daal ba aar suuf si fële ca Dugar jàppante yi nga xam ne am na fa ba léegi tam ak force de l'ordre yi loolu nag ñi nga xam ne waa Y'en a marre waa FRAPP ak itam France Dégage ñoom ñëpp daal gis nañ ne loolu dañu bëgg jàmm am foofu le ndax itam yëf yi jaarul gi Marie Sagna mi doon seen coordonnateur ak itam kilifa ñoom demoon nañ foofu le ñu déglu kon euh, ci waa yanamaar a kii di kilifa ñu ay kàddoom ñu teewlu. mouvement Y'en a ak mouvement FRAPP comme ni ko baaxoo di defee saa su nekk di nekk ci wetu askan wi di xeexandoo ak askan wi. tey jii fii la ci Dougar. am ñoo xamante ni dañoo jóge feneen fu dul Sénégal nekk ay marocain ñëw bëgg nangu suuf si nga xamante ni waa Dugar ñoo ko moom dëkk fi lu tolloog ci ñetti siècle depuis 2009 ba léegi nag ñu ngi xool nuñ ci taxawee pour loolu bañ a am léegi nag wax ji moom je pense que ni dafa leer nañ su leen gis sénégalais dem Tunisie wala Maroc wala fu mën a doon fudul Sénégal am fa benn benn mètre carré lan moo tax ñun suñu njiitu réew mi nangu képp ki nga xamante ni étranger nga nga jóge fële ñëw bëgg a accaparer suufu Sénégal nangu suufu Sénégal ci sénégalais yi li ñuy xeex te mu nekk xeex boo xamante ni duñ ci deltu ginnaaw mooy dañu bëgg suufu Sénégal dellu ci loxo sénégalais yi. loolu kiñ ciy njëkk a interpellé mooy ki nga xamante ni moom la ñu dénk moomeelu Sénégal muy le président de la République bugguñu deret di tuur bugguñu bakkan di rot bugguñu gaañante di am. bugguñu wax dëgg yàlla ak yonent bi di janoog suñu ay frères policiers wala gendarme di defante defante yu méttee méttee métti ñetti conditions yi nga xamante ni teg nañu ko mooy déjà ci xeex bi bi mu commencé bërki démb mercredi ba tey dañu am benn détenu actuellement bu ñu jàpp mu ngi ci oto bi am na beneen détenu boo xamante ni mu ngi garde à vue dañu bëgg ñu libérer leen sans condition le plus rapidement possible beneen bi entreprise bi nga xamante ni moo di pick di ay ji euh, ay marocain jiite ko moom ko ñu arrêté lépp loo xamante ni euh, rajaxe kër yi la lépp loo xamante ni sàccum suuf la lépp loo xamante ni tajum kër la ñu arrêté ko immédiatement ñi nga xamante ni nag ñooy autorité compétentes yi les services de l'État compétents ñu créer au moins ñu toog ci taabal pour discuter xool nan la ñu mën a régler problème bi donc ñetti conditions yooyu la ñu posé te dañ ko soxla ci nu mu gën a gaawee lu ko mooy ñun soxlawuñu wu ñu ñibbi ndax fii lañ dëkk kon ñu ngi fi campé di leen xaar tant que def loolu yii amul duñu bàyyi duñu deltu ginnaaw. ñoo ko déggandoo am na yeneen jàppante yi amoon fële ca euh, Joxin wax ca Joxin wax nañu ne ak alkaati yi ak itam askan wa ci dibeer ji rek maanaam loolu amaat na fa ba fukki nit ak ñeent am ci ay gaañu gaañu am na ci sax daal ñoo juróom-benn yoo xam ne ci force de l'ordre yi dañoo am ay gaañu gaañu ñoom itam alkaati yi am na ci fanweer yoo xam ne jàppoon nañu leen Ngor yëf yi nag dalandi na fi nga xamante ne moom mooy Diohine gannaaw bu ñu fa yendoo ci bés bu tàng mu nekkoon na xeex bu métti bi amoon na diggante manifestants yi ak service de l'ordre ya fay nekk bilan bi nag diis na ndax fukk ak ñeenti nit ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu juróom mbenn yi doon ay gendarme juróom ñaat yi nag bokk ci ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo doon manifester waaye ñaar ñi sax itam seen gaañu gaañu métti lool ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy sécurité yi bàyyeekoon croix rouge ñoom ñoo leen rawale ji nga xamante ne moom mooy poste de santé bi nekk ci joyin waaye manifestants yi mm, yemuñu ci loolu ndax jot nañu taal ñaari néeg yi nga xamante ne ñu ngi bokk ci daara bi nga xamante ne Serigne Bara mi indi maire bi daal moom moo ko moom waaye it am na fanweeri ndaw ak juróom-ñeent yi nga xamante ne gendarmerie teg na leen loxo yëf yi nag mu ngi paccaxo bi nga xamante ne daal ndaw yi dañu dem ba seen yaram tàng ñu bëgg a song kër marabu bi nga xamante ne moom mooy Serigne Bara Sène waaye boobu fekk na sax gendarme yi tam teeloon dugg fi nga xamante ne moom mooy joyin wër kër gi nga xamante ne moom mooy kër Serigne Bara Sène waaye itam wër dëkk bi ba mu fees dell ndaw yi nag ba léegi itam ne nañ daal mënatuñu bokk jëyin ak sëriñ bi ni mel jur mer wi ak jàppante bi yépp nag mu ngi xawoon ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu wees keroog ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay taalibe sëriñ Baara dañu jotoon jàppante ak askanu jëyin ba tax itam ñu daal ne leen rek moo mën a am Serigne Bara mi nga xamante ne mooy doomu Serigne Cheikh Ndigal seen bi nekk Njàmbur Sine ci commune bu Patar na bàyyi seen dëkk bàyyi leen ak jàmm gendarmerie itam ba léegi mu ngi ci dëkk wi ak lu toll ci ñaar fukk oto yi nga xamante ne itam dañu nga naayoo ba fees Ngor Sarr Joyin Sud FM. ñu fàttali ne ñooñu nga xam ni gendarme yi jàppoon nañ leen tam mujj nañ leen daal di bàyyi kon ñooñu doon jàppante ak itam gendarme yi doon foofee bëgg tamit ki nga xam ne moo di sëriñ bi nekk foofule daal di leen di abal coow li na kur waaye ñun ci jotoon téye nee ñu mujj nañ leen daal di bàyyi. li aju yi tamit euh, ci ndox mi fële ca Jobaas foo Jobaas moom daal euh, bërëb la boo xam ne bii metti na lool ndox moom tumuranke na fa ba askano sax am ñu jóg ne daal fokk rek lii moom daal di dakk euh, Babacar Ndaw Amar bu tar laal askan bu jobaas mbir mi dafa gën a jéggi dayoo de Moussa Mbodj a fekk baax ci dëkk bi di Mbodjeen yor kàddu bu askan jobaas es ça fait deux ans boo xoolee amul benn robinet boo xamante ni bii yokk na ci li fi nekkoon Aquatech yokk fi dara mën nañ cee lim Mbodjeen kër Mamour moom ñoom fàttali ni sax mas nañu am robinet parce que ñoom seen robinet banaa wax pratiquement kër Wade Mbengeen Cambeen dëkk yëpp su ci forage bi la ñu dépendre mënuñoo gisum ndox plateforme citoyenne les sentinelles du Diobass a fas yéene ànd ak ñoom ci xeex bi awatin bokk ci kuréel googu ñun ñëpp ñoo mën a àndandoo xeex li nga xamante ne moom mooy ñàkk ndox bi pour ñu mën ci am solution ndax comme ni ngeen ko waxee sànq li gën a métti moom mooy nga nekk ci benn dëkk boo xamante ne ay forage ñu ngi ko fa implanté forage yooyu di desservir une bonne partie de la population sénégalaise ay Dakar ay Petite Côte ay Thiès ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo dëkk ci gox ba ñuy am problème mu ndox loolu c'est une injustice te bi daf ko war a réparer ne lu jot jot na xeex mi moom danañ nit mun nga ñàkk courant mun nga ñàkk lu nekk mais ndox nit waru ko ñàkk ndox mooy dund. tout on nous parle d' mais je peux pas comprendre ñu ne dañu nekk dans un Sénégal émergence sans eau munul nekk. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey ji ñetti fan ci weeru mai moo di bis bi nga xam ne àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel way taskatu xabaar yi ñi nga xam ne tam ñoom ñoo di association de presse boobu ñu duppee tamit CAP ñoom wax nañu ne daal itam ñoom daañu tey sax ñoom ñëpp toog tey ji ci kanamu ministre bi ministère bi ñu dénk wàllu communication ngir war a seenu naqar ci jalgati gi nii jalgatu euh, charte yi ak tam àqi taskatu xabaar yi Mamadou Ibra Kane bu CDEPS am ay kàddu yu mu dénk Ablaye Diop ñu déglu. le 3 mai nag date bu symbolique la. mooy euh, journée internationale de la liberté de presse. donc association presse Sénégal yëpp ñu ne dañuy jël jour jafe la liberté de la presse am fii au Sénégal li tax ñu organiser sitting bi parce que dañu am ay tiitange yi rëy rëy rëy sur la violation les violations de la liberté de presse ici au Sénégal ci mois de mars bi ñu génn mois de mars bi ñu génn dafa amoon benn cortège euh, député bu député Ousmane Sonko mu doon dem uyu le juge euh, léegi presse sénégalaise bi di couvrir euh, le cortège du député Ousmane Sonko ñu tollu ci benn bërëb bu nga xam ne euh, journaliste yi boobu fekk cortège bi taxaw na journaliste yi di def seen liggéey te préfet de Dakar ñëw fekk leen foofu mais force de l'ordre yi nañu chargé les journalistes euh, ñu daal di leen di gazé dégg nga ñu daal di leen ci violence donc loolu ñaawteef la sur la liberté de la presse parce que autorité administrative warul mun a tere journaliste mu def liggéeyam donc loolu bu ko defee dafa violer la liberté de presse ci euh, événement yi mois de mars aussi euh, am nañ fi situation bu nga xam ne assemblée nationale bu nga xam ne moom mu ëmb les représentants du peuple assemblée nationale euh, ne journalistes yi amuñu droit couvrir session parlementaire bu nga moo war a lever immunité wu député Ousmane Sonko ñu teg ci beneen événement bu doy waar bu nga xam ne organe de régulation bi nga xam ne moom moo fi nekk actuellement muy CNRA am sañ-sañ daal di tëj télévision daal di couper signalu ñaari télévision muy Sen TV ak Walf FM loolu euh, yoon mayu ko ko euh, mayu ko CNRA pour mu couper signal télévision ou bien rajo bi nga xam ne moom moo institué CNRA muy loi 2006 amul beneen loi bi nga xam ne euh, jël nañ ko ak boobu loi boobu mayul fenn CNRA compétence su teg télé ou rajo li ci wàllu tournée boo xam ne bi ci wàllu koom la ñu duppee ko tournée économique bu Bougane Gueye daani doon amal euh, moom mi jiite mbootaay gi ñu duppee gëm sa bopp euh, ci fële ci ñaay bi ak i tamit rek fële ci daaru Alpha Babacar Sow tukkib nemmeeku ci wàllu koom-koom Bougane Gueye daani président mouvement gëm sa bopp soldalam dem nemmeeku ji zone des ñaay ca daaru Alpha dëkk bu nga xamee ne mu ngi ci commune bu Notto Gouye Diama département bu Tivaouane tax na ba moom moomee nekk jëwriñ ci mouvement gëm sa bopp yéey yàbbi ci jafe yi nga xamee ni askan wi ñu ngi koy dund rawatina baykat yi gis naa ne ndaw yi ci réew mi sonn nañu nit ñi jaaxle nañu borom kër yi am nañu métit jigéen ñi loof nañu parce que bu fekkee ne nit ki boo xiifee mënoo lekk boo feebaree mënoo faj booy ñàkk sa ñàkk mënul doon sa teraanga kon booba nit ki sonn moo tax ma jóg jaayanteeg suñu borom ne lii askan wi dund danaa ci xar sama tànk yi ngir ñu changé ko le maire loolu mooy vision wu gëm sa loolu moo nekk suñu engagement waaye ci subaak léegi ñu def tund wi diggante nooto ba wax ji benn la wax ji mooy dañuy daan suñu doole di bay li ñuy bay mënuñoo jariñ li ñuy bay mënuñu koo jaay kenn jàppalewuñu kenn taxawuñu mu doon ci teewaayu mbooloo mu takku jëruñ ñi nga xamee ni mooy deuxième adjoint mairie Notto Gouye Diama Alpha Mbeng moom itam daal di yiy yàbbi ci li di mel dellusiwaat ci jafe-jafe nga xamee ni askan wi am na ko ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina ni ñu bàyyee ndil daaru alfa boppam ba tax sax muy delluwaat di wax taxawaayam bi nga xamee ni mi ngi koy def ci wetu Bougane Gueye Dany gëm sa bopp Alpha Mbeng tali ba tey boo demee dagga ci laan xay fépp foo mën a jaar fii ci poussière ngay dund ñu ne tey ñoom am nañu indépendance depuis boobu ba léegi tali bi nekk fii te kenn mënu cee wax dara jumaa ji nga gis sa ginnaaw nee nañu état dafay jàppale ville religieuse bi ñu ko waxee ak léegi ça fait des années may wax ne décision bii ma jël dama ko jël te yàlla xam na ne dama ciy dund ak su may mbokk barki démb ñoo ngi ci dëkk bu ñuy wax xaydaag fu sori la ci biir dañoo am benn commission boo xamante ni bu ngoonee ñu jël suñu clando dugg ci biir dëkk yi di waxtaan ak askan wi bu ngir mën fexe ba xamal leen li fi xew ñu fexe xool nan lañ koy soppee Tivaouane Babacar Sow depuis Daaru Alpha pour Sud FM euh, soxna Maria foofu lañ ci daal di taxawal. ngir yeneen ci xibaar. 7h30 minutes, euh, seconde édition de ce bloc d'information. Si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez Sud Matin sur Sud FM Sen Radio 98.5 à Dakar en synchro avec toutes nos stations régionales. Vous nous suivez aussi sur toutes nos plateformes digitales. Bonjour, Adjaratou Seignon. Bonjour, Maria. Nous sommes le lundi mai et aujourd'hui, mai, est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour la coordination des pour dénoncer les violations de la liberté de la presse, des euh, événements jugés extrêmement graves euh, lors du mois de mars, explique Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal avec Abdoulaye Diop. Malheureusement, après les événements du mois de mars dernier, il y a eu beaucoup de violations de la liberté de presse, euh, dont, par exemple, euh, le préfet de Dakar qui a ordonné aux forces de l'ordre de gazer les journalistes et techniciens des médias. Hein, nous pensons que cela émanant d'une autorité administrative est une violation extrêmement grave de la liberté de presse. Une autorité administrative ne doit pas empêcher la presse de faire son travail. Deuxièmement, 21 dans les violations à la liberté de presse, euh, l'interdiction par l'Assemblée nationale de la couverture de la session parlementaire pour la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. C'est également un fait extrêmement grave en ce sens que la représentation nationale euh, se cache du peuple. De la même manière, nous avons constaté la violation de la liberté de presse par le CNRA, organe de régulation de l'audiovisuel, qui n'a aucune compétence pour couper le signal d'une télévision. C'était les télévisions euh, Walfadjiri et Sun TV qui en ont été victimes. Donc euh, la tenue d'un sitting euh, par euh, toutes les associations de presse du Sénégal est un signal extrêmement fort pour le gouvernement en place, pour le régime en place, pour dire attention, est-ce que vous êtes au courant de toutes ces violations de la, de la liberté de presse effectivement un signal pour tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition. C'est également un signal pour euh, une alerte pour tous les citoyens sénégalais pour qu'on puisse préserver notre presse qui garantit la liberté d'expression, une presse qui garantit la stabilité politique et sociale, une presse dont on peut s'enorgueillir en ce sens qu'elle nous a permis deux alternances politiques en 2000 et en Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, sera notre invité tout à l'heure. Rappelons qu'un sitting est prévu ce matin devant le ministère de la euh, Communication pour marquer cette journée. Sitting également ce matin du collectif des enseignants diplômés pour la mise en position de stage. Sitting à la FASTEF à 9h. Objectif, protester contre l'attitude du gouvernement qui, depuis 2012, laisse en rate une masse de près de 3000 enseignants. Un sitting donc prévu euh, ce euh, matin. sur les affrontements survenus à nouveau hier à Dougar. Euh, donc des affrontements qui ont entraîné euh, trois blessés, dont l'un par balle, selon les euh, habitants en colère qui s'opposent aux opérations de euh, démolition initiées par la DESCOS. Les précisions du porte-parole des habitants de Dougar, Diop Ndour Ndiaye, avec Birama Ndiaye. Là, vraiment, nous vivons des situations euh, déplorables au niveau de Dougar, d'où l'affrontement de la population avec la gendarmerie de DESCOS. Il y a trois blessés, l'un par balle. Les deux autres sont extrêmement blessés. L'un risque de perdre l'usage de ses deux yeux. Donc, ce qui est déplorable. Uniquement pour l'intérêt d'un Marocain qui est là pour détruire des maisons sénégalaises pour pouvoir en construire d'autres maisons. C'est vraiment déplorable. Et nous demandons, nous sommes dans quel Sénégal Le Sénégal pour tous ou bien le Sénégal pour un Des affrontements donc hier à nouveau à Dougar avec l'appui, le soutien euh, des mouvements Y en a marre, Frappe France Dégage qui étaient sur les lieux pour exprimer leur solidarité devant l'injustice que subissent ces populations. Des affrontements également enregistrés hier entre des jeunes de Diohine et les forces de l'ordre. Des affrontements qui ont fait hier dimanche 14 blessés dont 6 du côté des éléments des forces de l'ordre. 30 personnes ont été interpellées, plus de 30 personnes avant finalement libéré euh, donc une case brûlée appartenant à Serigne Bara Sène dont les jeunes demandent le départ définitif du village. Défaillance dans la distribution de l'eau dans la commune de Notto euh, Diobass pour protester contre ces pénuries récurrentes. Le mouvement citoyen dénommé les Sentinelles du Diobass euh, qui porte le combat a convié les habitants à un grand rassemblement euh, Le syndrome de la soif dans le Diobass affecte terriblement la zone est de la commune de Noto. Le village de Hanen et environ hausse le ton. Kër Wade Mbenguen Cambine dëkk yëpp suuf ci forage bi la ñu dépendre mënuñoo gisum ndox. Deux ans de calvaire, un manque d'eau notoire qui irrite le mouvement citoyen les Sentinelles du Diobass qui porte le combat des populations. Pape Modou Tiandoum, porte-parole du jour. C'est donc l'occasion de préciser que la souffrance de la zone de Anen, raccordée aujourd'hui à Madaro, est grandement liée au manque d'initiative, aux énormes défaillances de la société Aquatec. Avant Aquatec, la gestion de l'eau n'a jamais été un problème à Anen et environ. Aujourd'hui, l'avènement de la privatisation qui découle de l'entière responsabilité de l'État du Sénégal n'est rien d'autre qu'une arnaque organisée, un manque total de respect des populations des selon la distribution de l'eau dans le Diobass à des forages implantés sur place qui desservent d'autres localités, une injustice à réparer selon les sentinelles du Diobass. Il serait aussi bien de préciser ici que les forages locaux du Diobass sont aujourd'hui confrontés à de sérieux problèmes de logistique, mais aussi et surtout de baisse drastique de la nappe. Ainsi, ils sont tous condamnés à mourir en raison de la puissance en termes de pompage que génèrent neuf forages destinés à la zone semi-urbaine et urbaine dont une grande partie de Dakar et de Thiès, mais également le projet Noto Ndiosmon Palmarin sur le champ captant de Tasset avec six forages qui desservent une bonne partie de la petite côte. Voilà pourquoi nous, Sentinelles du Djobas, exigeons un branchement de tous les villages de la commune à partir de ces deux pôles pour une solution efficace et durable. Il est donc de la responsabilité de l'OFOR de créer les conditions pouvant permettre une entente entre Aquatec à propos de l'approvisionnement correct en eau des populations du secteur de Anen. opérateurs Aquatech, les sentinelles du Diobass n'écartent aucune action pour remettre à leurs concitoyens leur dignité. Les populations du Diobass, citoyens à part entière, sont entièrement laissées à part. Il nous faut donc nous battre à rétablir cette injustice. Aujourd'hui, on demande plus vraiment l'amélioration de, de qualité, mais on veut que Aquatech vraiment dégage. Babacar Ndaw, Thiès Et puis portées disparues depuis bientôt deux ans, quatre personnes donc ont disparu depuis lors dans la forêt de Niadiou. Les familles, à l'image de celle de Fodé Konaté, l'un des portés disparus aujourd'hui partagé entre espoir d'un hypothétique retour et angoisse des familles qui restent divisées sur la question euh, du deuil. Un reportage de Ignace Ndeye. Faut-il faire le deuil après 18 mois de disparition? La question fait polémique au sein de la famille de Fodé Konaté, l'un des quatre portés disparus depuis bientôt deux ans. Une famille partagée en ce moment entre espoir d'un retour hypothétique de Fodé Konaté et angoisse d'une disparition définitive reste divisée sur la question quant à porter le deuil. Ibrahima Sakho l'oncle de Fodé Konaté. man mii wax na jabaram <coughs> ma ne ko fu moi j'ai dit à sa femme de porter le deuil mais là elle ne semble pas d'accord jusque là il y a un problème eh, pour elle de porter le deuil de Fodé alors que nous nous avons perdu espoir. suñu yaakaar ne ko si léegi toogu noonu te xale bu ndaw la encore loolu rafetul. bientôt deux ans que Fodé Konaté et trois de ses compagnons partis à la recherche de fruits sauvages et de bois dans la forêt de Niadiou sont portés disparus dans cette même forêt. Aucune trace, aucune nouvelle depuis bientôt deux ans. La famille perd espoir de retrouver son parent. ñu ngi ñaar at yi ñu ngi koy uuti. fu ne dégguñu xibaaram. dégguñu après deux ans on est à sa recherche mais pas de nouvelles je suis allé jusqu'en Guinée-Bissau dans un village appelé Bofa j'ai beau chercher ah, demander rien ah là on a perdu espoir plus d'espoir Une lueur d'espoir avait pourtant surgi au sein de la famille lorsqu'une certaine rumeur circulait sur la présence de ces portés disparus de Fodé et ces trois autres personnes qui travailleraient dans des champs contrôlés par des bandes armées dans la forêt. Mais hélas. L'année dernière, quelqu'un nous avait signalé la présence d'une personne aux mains de bandes euh, armées qui travaillerait dans les champs. Mais après rien, plus de nouvelles de Fodé. aucune trace de Fodé Konaté et les trois autres personnes. Les recherches arrêtées depuis. L'espoir s'amenuise de jour en jour chez la famille de Fodé Konaté, l'un des quatre portés disparus. parce que maaluutu bu ñëw le cinq xaw ma le cinq le six la demoon. ah ñun de yàlla parce que ñun de suñu yaakaar tes na. xëy na mën na am mu ñëw. waaye léegi ñun suñu yaakaar daal alhamdulilah. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Et puis euh, cette tournée économique de Bougane Gueye Dany leader du mouvement Gëm sa bopp il était dans la zone des Niayes plus précisément à Darou Alpha Babacar gis naa ne ndaw yi ci réew mi sonn nañu. nit ñi jaaxle nañu. borom kër yi am nañu métit. jigéen ñi loof. tournée économique de Bougane Gueye Dany président du mouvement Gëm sa bopp dans la zone des Niayes l'étape de Darou Alpha un village de la commune de Notto Gouye Diama dans le département de Tivaouane une occasion le leader du mouvement sa bopp détaillé les nombreuses difficultés auxquelles les populations dans la zone principalement les producteurs agricoles sont confrontés. parce que bu fekkee ne nit ki boo xiifee mënoo lekk boo feebaree mënoo faj booy ñàkk sa ñàkk mënut doon sa teraanga kon booba nit ki une tribune pour Bougane Gueye Dany de revenir sur la souffrance des populations dans la zone des Niayes il en a profité pour s'engager dans la résolution de toutes ces difficultés avec le mouvement Gëm sa bopp devant le deuxième adjoint au maire de la commune de Notto Gouye Diama Alpha Mbeng. li askan wii dund danaa ci xar sama tànk tubay ngir ñu changé monsieur le maire loolu mooy vision wu gëm sa bopp loolu moo nekk suñu engagement. Alpha nga kii a quitté la mouvance présidentielle pour le mouvement gëm sa bopp que nous écoutons. décision bii ma jël dama ko jël te yàlla xam na ne dama ciy dund ak sumay mbokk depuis boobu ba léegi tali bi nekk fii te kenn mënu cee wax dara jumaa ji nga gis sa ginnaaw nee nañu état dafay jàppale ville religieuse bi ñu ko waxee ak léegi ça des années. Tivawan, Babacar depuis pour Sud FM. Sport, le Casa Sport inflige à Tenguetia FC sa deuxième défaite de la saison. L'équipe fagnon de Ziguinchor s'est imposée sur le score d'un but à zéro. Euh, la réaction du coach Ansou Diadio au micro de Ben Michel Confus. des, jeunes qui ont des combats qui étaient engagés en dehors du système de jeu qu'on avait mis en place pour contrer l'adversaire parce qu'on savait qu'il allait venir jouer, il était confiant, tout ça Donc, on a dit qu'il faut les mettre en doute pendant 30 minutes après maintenant euh, réagir. Les mettre en doute, c'est quoi C'est les empêcher de faire leur jeu qu'ils ont l'habitude de faire, Et les obliger à buter. Et après maintenant, essayer de voir si on pouvait avoir un but. Ce qui a été déterminant, c'est l'envie parce que n'est-ce pas, et le respect des conflits. en deuxième mi on a demandé d'avoir de l'envie. Et c'est ce que le jeune aîné a fait. Il, a, il nous a gratifié d'un joli but. c'est ce que nous demandons aux jeunes de continuer à faire, avoir de l'engagement et de l'envie. Parce que c'est un jeu aussi. Il faut se battre pour ne pas perdre, mais aussi des fois, il faut jouer et puis essayer de se libérer.

www.sudfmsenradio.com c'est la différence. Sud Matin, l'invité du jour. Ce 3 mai, célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion saisie pour la coordination des associations de presse CAP de tenir un sitting devant le ministère de la Communication pour dénoncer les violations euh, de la liberté des journalistes, notamment lors des événements euh, du mois de mars dernier. Pour en parler, nous recevons ce matin le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal, CDEPS. Il se nomme Mamadou Ibra Kane et s'entretient Ibrakan, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Oui. Également coordinateur des associations de la presse, c'est comme ça La CAP euh, qui tient donc euh, ce lundi un sit-in devant les locaux du ministère de la Culture et de la Communication. Est-ce qu'on peut mhm. savoir quels sont les motifs Le 3 mai est une date symbolique pour nous, les acteurs des médias, journalistes et techniciens, parce que c'est le jour de la journée internationale de la nous voulons saisir cette occasion pour euh, dire quel est l'état de la liberté de presse au Sénégal. Et malheureusement, après les événements du mois de mars, du mois de mars dernier, il y a eu beaucoup de violations de la liberté de presse, euh, dont, par exemple, euh, le préfet de Dakar qui a ordonné aux forces de l'ordre de gazer les journalistes et techniciens des médias. Hein, nous pensons que cela émanant d'une autorité administrative est une violation extrêmement grave de la liberté de presse. Une autorité administrative empêcher la presse de faire son travail le plus normalement du monde. Deuxièmement, il y a également comme fait saillant dans les violations à la liberté de presse euh, l'interdiction par l'Assemblée nationale de la couverture de la session parlementaire pour la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. C'est également un fait extrêmement grave en ce sens que la représentation nationale euh, se cache du peuple hein, se cache des citoyens sénégalais en interdisant euh, la couverture de l'événement par la presse qui ne fait que rapporter euh, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. De la même manière, nous avons constaté la violation de la liberté de presse par le CNRA, organe de régulation de l'audiovisuel, qui n'a aucune compétence pour couper le signal d'une télévision. C'était les télévisions euh, Wolfadiri et Sun TV qui en ont été victimes. Donc euh, la tenue d'un sitting euh, par euh, toutes les associations de presse du, Sénégal est un signal extrêmement fort pour le gouvernement en place, pour le régime en place, pour dire attention, est-ce que vous êtes au courant de toutes ces violations de la, de la liberté de presse effectivement un signal euh, pour tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition. C'est également un signal pour euh, une alerte pour tous les citoyens sénégalais pour qu'on puisse préserver notre presse qui garantit la liberté d'expression, une presse qui garantit la stabilité politique et sociale, une presse dont on peut s'enorgueillir en ce sens qu'elle nous a permis deux alternances politiques en 2000 et en 2012. Vous l'avez dit, garantir la liberté de la presse au Sénégal, cela doit passer mmh. forcément par l'application application euh, du nouveau code de la presse Oui, il y a un code de la presse qui a été adopté depuis juin 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril euh, 2021, soit euh, quatre euh, ans plus tard, et malheureusement, ce code reste une coquille vide. grande avancée pour la presse sénégalaise. Un nouveau code de la presse puisse être voté. Mais malheureusement, les textes d'application qui doivent donner un euh, de la presse, ces textes d'application Et cela vide son essence euh, le code de la presse. Euh, exemple euh, l'exemple de la loi la publicité qui de la publicité, à l'époque, n'avait même pas connu de texte d'application, de décret d'application. Donc, c'est-à-dire que la publicité, <clears throat> depuis maintenant plusieurs décennies, est, euh, n'est pas réglementée au Sénégal. Et ça, c'est important pour les médias sénégalais pour qu'ils puissent avoir euh, un texte euh, législatif et réglementaire sur la publicité. Sans cela, c'est la loi de la jungle et la loi de la jungle ne saurait donc prospérer dans le cadre d'une république. euh, le code de la presse qui a été voté il y a quatre ans hein, ne peut euh, jouer euh, le rôle qu'on lui a euh, donc assigné euh, pour assainir le secteur de la presse, euh, tant du point de vue de l'accès à la profession que du point de vue des entreprises de presse. Mamoud Ibrakan, nous ne pouvons ne pas parler de la nouvelle convention collective. Aujourd'hui, les jeunes reporters se plaignent du fait que cette nouvelle convention n'est pas appliquée par les patrons de presse. Qu'est-ce qui explique ce Le code de la convention collective a été adoptée depuis novembre 2019. Euh, son application était obligatoire pour l'ensemble des entreprises de presse à compter du 1er janvier 2021. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est une obligation légale. Hein, je ne peux dire que ça, c'est que tout le monde est tenu au respect de la loi. Euh, même s'il est vrai que entre-temps, donc depuis mars 2020, euh, il y a une situation de pandémie euh, qui affecte sérieusement les entreprises de presse moins à hauteur de 70% pour les pertes de recettes dans la la presse écrite, 54 pour cent euh, pour euh, la télévision et près de 45 pour cent pour Internet et la radio. Donc euh, c'est un impact extrêmement important. Donc nous espérons une période de, de, au niveau de la presse, hein, y compris par l'application euh, des, des, nouveaux textes euh, du la presse, hein, pour nous permettre donc d'assainir le secteur de la Les entreprises qui ne pas les conditions ne de presse. Donc la loi va jouer. Merci beaucoup, Mahmoud Ibrakan. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, et coordinateur de la coordination des associations de presse CAP. Merci à vous Abdoulaye Diop. C'était donc notre invité monsieur Mamadou Ibra Kane comme il a dit président du conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise. jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu daal di dooree xabaar yi ci sitting boo xam ne bii ñi di ab collectif di mbootaay goo xam ne ay jàngalekat lañ am ay lijaasa ay diplôme ba noppi itam daal memel ne daal am sax stage wala fu ñu mën a nekk itam daal mbir mi dafay xaw a doy waar lool. waa euh, Fastef ñoom daanuñ ko ne seen i mbir dañ cee yéeyul yàbb ci lenn loo xam ne wur nuru na ak loole gannaaw ba ñu defee ay formation ba noppi ay jàppante ba mu ngi doon wéy fële ca Dugaar gannaaw ba nga xamee ne askan wa dañoo mer lool rawat nag la leen gën a mer nag mooy wa Descos bi nga xam ne dafa nekkoon di daaneel ay kër yu baree bari ànd itam ak ñi nga xam ne ñoo di gendarme yi ba daal coow li na woon kur foofee eh, jàppante ba nag eh, taroon na met na leen itam Eh, kii di Diop Ndaw Ndiaye daañu ci dikkaat incha allah eh, ci ay kàddu yi nga xam ne jot na ko ratal ak Birama Ndiaye li aju tamit eh, ci. aar lépp loo xam ne aju na ci wàllu suufu dugaar boobule ak itam jàppante yi nga xam ne amoon nañ fa ak itam ak askan wa ak ñi nga xam ne ñoo di gendarme yi waa Y'en a marre ña nga foon waa FRAPP ak itamit France Dégage ñoom ñëpp daal bëggit ñu daal di rek bàyyi xel suuf soosee tey tamit doxandéem yi nga xam ne dañoo mel na fu jógee Maroc ak yu demee noonu ñu daal di jël seen i kaggu te daal di génn ci bit ndax ñoom ni ko kilifa waxee gis jàpp nañ ne daal itam askan woowulee daanaka seen ak ak seen yelleef yalgati nañ ko seen suuf soosee ñuy bëgg koo jël te loolee Sénégal yi demoon duñ fa mën am benn fepp buy nuroog wàllu suuf li yi tamit euh, ci jàppante yi amoon ba tey itam rek euh, ca fële nga xam ne moo di joxin nga xamee ne foofu euh, gendarme yi ci dibéer ji ñoo fa nekkoon fukki nit ak ñeent am ci ay gaañu gaañu gendarme yi sax am na ci juróom-benn yoo xam ne yi am nañ ci ay gaañu gaañu ñoom itam fanweeri doomu aadama yoo xam ne jàppoon nañ leen gannaaw gi sax mujj nañ leen bàyyi am na fa sax ñaari néeg yoo xam ne taal nañ ko ci kër Serigne Bara Sène moomee nga xamee ne ndaw ñi daal dañu ne leen abal foofee di doom ci kii di Cheikh a euh, Sène li aju yi tamit eh, ci rek eh, coow ak tolof tolof yi am ci wàllu ndox mi eh, fële ca Jobaas ca boori Thiès foofu moom dëkk la boo xam ne bii daanaka dañoo tumuranke lool ci wàllu ndox ba daal askano sax ñoo yëkkati seen bopp na ñoom ñoo ko fas yéene bëgg a xeexal seen bopp Babacar Ndaw amar bu tar laal askan bu Jobaas mbir mi dafa gën a jéggi dayoo de Moussa Mbodj a fekk baax ci dëkk bi di Mbodjeen yor kaddu bu askan Jobaas es ça fait deux ans boo xoolee amul benn robinet boo xamante ni bii yokku na ci li fi nekkoon Aquatec yokku fi dara mën nañ cee lim Mbodjeen kër moom ñoom mas nañu am robinet parce que ñoom seen robinet banaa wax pratiquement kelleetul sax kër wàdd mbengeen càmbeen dëkk yëpp su ci forage bi la ñu dépendre mënu ñoo gisum ndox ba njuufeen kër ma daaroo fi mu li ci gën a garaaw mooy tey bu ma leen waxee ni la forage anam bi doxatul du si wéer kuréel gi di a fas yéene ànd ak ñoom si xeex bi awatin bokk si kuréel googu ñun ñëpp ñoo mën a àndandoo xeex li nga xamante ne moom mooy ñàkk ndox bi pour ñu mën ci am solution ndax comme ngeen waxee sànq li gën a métti moom mooy nga nekk si benn boo xamante ne ay forage ñu ngi ko fa implanté forage yooyu di desservir une bonne partie de la population sénégalaise ay Dakar ay Petite Côte ay Thiès ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo dëkk ci gox ba ñuy am problème mu ndox loolu c'est une injustice te loolu état bi daf ko war a réparer. ba tax na nag ñoom ñu jàpp ne lu jot jot na xeex mi moom danañ ko wéyal bu ñu nemmeeku ne gisuñu seen kilifa yi. li nga xamante ne moom mooy bëgg-bëgg askan bi ci loolu la ñu nekk bëgg ñu réparer ko ndaxte ndox dafa nekk loo xamante ne nit mën nga ñàkk courant mën nga ñàkk lu nekk mais ndox nit waru ko ñàkk ndox mooy dund nous parle d'émergence mais je peux pas comprendre ñu ne ñu nekk dans un Sénégal émergent sans eau mënul nekk. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax daanaka léegi mu yegg ci ñeenti ati yàlla ñi nga xam ne dañoo réeroon ci foore kal àll euh, bu dëgër bu nekk fële ci diwaanu ci Ziguinchor bu fële ñu duppee ñaaju njabootu kii nga xam ne moo di foode kante moom gisatuñ ko sax waaye nag daal euh, moom dafa réer daal booba nag euh, askanoo nag jaaxle nañu lool am na sax ñu ne daal seen yaakaar yeeg yàkkee ko na ñeent nit lañu woon nag itam booba léegi ut ci atum 2019 ñu ne mëri ci àll bi mu jaaxal leen daal ba ñu naan dañu leen di dajëg dañu leen di muur ak lu ci am mën a am jaaxle nañu Ignace Ndeye ndax war nañoo tëñ kii di Fodé Konaté ginnaaw fukki weer ak juróom-ñett bi nga xamante ni réer na ba léegi kenn gisu ko laaj bi ni mel nag jamono yi indi na xëccoo ci biir njabootu Fodé Konaté yi Fodé bokk ci ñeenti ñi nga xamante ni uh, ci atum 2019 ci weeru août bi la ñu réeroon ci àll bi ba léegi kenn gisu leen seen jaboot nekk jamono yi ci diggante yaakaar ñu gis leen ak njàkkare ñu faatu war nañ ko dëjal am déet jamono yi daal di leen xaajale Ibrahima Sakho nijaay la ci Fodé yi man mii wax na jabaram ma ne ko fu mu tël nii te njël waa depuis boobu dégguma ko bon mu ne presque ba léegi daal problème bi tenj bi moom te njuul moom yaakaar mu ngi si moom te ñun fu ñu nii suñu yaakaar ne ko si léegi toogu noonu bu ndaw encore loolu rafetul léegi mu mot nag ñaari at ginnaaw Fodé Konaté ak ñett ñi xamante ni ñoom la àndaloon dem ci àll bi wuti ay fruits sauvages ak i bant ba léegi kenn gisu leen ci weeru août atum 2019 ci àllu ñaaju amul benn xibaar amul benn trace bi nga xamante ni njabootu ñoom Fodé seen yaakaar mu ngi wéy di tas ñun koy ñaar at yi yëpp ñu ngi koy uuti fu ne dégguñu xibaaram dégguñu dara si affaire am dama jóge fi dem ba Guinée Bissau dem dëkk bu ñu tudd euh, Bofa ma dem laajte ba foofu waaye dégguñu benn xibaaram ah ñun kay fu ñu toll nii suñu yaakaar tes na ñun kay amuñu yaakaar si moom xëy na yàlla xam waaye ñun de amuñu benn yaakaar si moom. jamono li yële ñu génn amoon tuuti yaakaar ginnaaw benn xibaar bi ñu jàppoon ni jot nañoo gis yi waaye nag loolu ba léegi kenn amatu ci lii di xibaar. daaw daaw presque dégg nañ am na ñu jàppoon ci benn eh, àll ba fale ñu ngi liggéey foofu waaye ba léegi dégguñu benn xibaaram ci Fodé Fodé Konaté amul benn xibaar amul benn trace su Fodé Konaté ak ñetti ñi nga xam moom la àndaloon ci àll bi ñu wër leen ba sonn kenn gisu leen ginnaaw léegi mu def ñaari at yaakaar mu ngi wéy ba léegi di gën a tas ci seen njaboot yi. parce que Maluutu bu ñëw le 5 xaw ma le 5 le 6 laa demoon ñun de suñu yaakaar tas na xëy na mën na am mu ñëw waaye ba léegi ñun suñ yaakaar daal alhamdulilah. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ci euh, loolee nga xam ne mu am ci dëkk euh, boobule. Euh, tournée boo xam ne bi koom a ko waraloon tournée économique bu Bougane Gueye daan doon amal ñu du moom du pee mbootaayam gi gëm sa bopp euh, ci boori ñaay bi ak baykat yi nekk foofu foofule euh, mbir mi nag tar lool ci askan wi foofee Babacar saw tukkib nemmeeku ci wàllu koom-koom Bougane Gueye Dany président mouvement gëm sa bopp soldalam dem nemmeeku ji zone des Niayes ca Daaru Alpha dëkk bu nga xamee ne mu ngi ci commune bu Notto Gouye Diama département bu Tivaouane tax na ba moom moomee nekk jëwriñ ci mouvement gëm sa bopp yooyu yàbbi ci jafe yi nga xamee ni askan wi ñu ngi koy dund rawatina baykat yi. gis naa ne ndaw yi ci réew mi sonn nañu. nit ñi jaaxle nañu. borom kër yi am nañu métit jigéen ñi loof nañu. parce que bu fekkee ne nit ki boo xiifee mënoo lekk. boo feebaree mënoo faj. booy ñàkk sa ñàkk mënut doon sa teraanga. kon booba nit ki sonn moo tax ma jóg jaayanteeg suñu borom. ne lii askan wi dund. danaa ci xar sama tànk tuba yi ngir ñu changer monsieur le maire loolu mooy vision wu gëm sa bopp. loolu moo nekk suñu engagement. waaye ci suba léegi ñu def tund wi diggante benn la wax ji mooy dañuy daan suñu doole di bay li ñuy bay mënuñoo jëriñ li ñuy bay mënuñu koo jaay kenn jàppalewuñu kenn taxawuñu mu doon ci teewaayu mbooloo mu takku jëru ñi nga xamee ni mooy deuxième adjoint mairie Notto Gouye Diama Alpha Mbeng moom itam daal di yéey yàbbi ci li di mel dellusiwaat ci jafe-jafe yi nga xamee ni askan wi am na ko ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina ni ñu bàyyee ndil daaru alfa boppam ba tax sax muy delluwaat di wax taxawaayam bi nga xamee ni ni nga koy def ci wetu buggaan ngay daan yi gëm sa bopp Alpha Mbeng tali la jaar boo demee dàgga ci laan xay fépp foo mën a jaar fii ci poussière ngay dund ñu ne tey ñoom am nañu indépendance depuis boobu ba léegi tali bi nekk fii te kenn mënu cee wax dara jumaa ji nga gis sa ginnaaw nee nañu état dafay jàppale ville religieuse bi ñu ko waxee ak léegi ça fait des années may wax ne décision bii ma jël dama ko jël te yàlla xam na ne dama ciy dund ak su may mbokk barki démb ñoo ngi ci dëkk bu ñuy wax xaydaat fu sori la ci biir dañoo am benn commission boo xamante ni bu ngoonee ñu jël suñu clando dugg ci biir dëkk yi di waxtaan ak askan wi bu ngir mën a fexe ba xamal leen li fi xew ñu fexe xool nan lañ koy soppee Tivaouane Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo nekk ca Tchad di ab soldat boo xam ne bi doom la ci Idriss Déby na benn rek euh, te jiite bi nekk transition am na gouvernement boo xam ne bi sampane na ko bu toll ci ñeent fukki ministre daal ngir xool rek nu ñuy mën a def ba mën a jàppandal euh, diggante ban fay nekkandi feeg fukki weer yàlla ak juróom-ñett su ko defee itam li mu digle mooy ñu dem ci ay élection yoo xam ne yi du am benn tolof tolof ca Tchad soxna Maria. jërëjëf Maodo Faye sant nañ la baax ba bu ko defee ñëwee ci xibaar rek dalal suñu gan.